mi ngi ci euh, mi ngi ci ligne bi euh, Maodo Malick Mbaye ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay nuyu Chérif. sa sa jàngat ci situation bi euh, ak ci tamit noo gisee report élection yi. waaw d'abord may nuyu ñu toog ci plateau bi di ci njëkkee suma mag Doudou Wade Souleymane ak maître Tall di rafetlu waxtaan wi di wax ni rek man contrairement li ñuy wax man dama jàpp ni tey bisu. bisu taxawaay la bisu bisu démocratie bu doon nit tey day taxaw mu reetaan mu mu bég pour une raison très simple xam nga euh, l'histoire na retient que les extrémités et escamote les intermédiaires tey bu ñuy xool ci conseil constitutionnel ak Sénégal liñ ci mën a jàpp mooy bu ñu fàtte ni il y a trente ans presque en quatre mille neuf cent quatre-vingt-treize coowal conseil bi mu amee liñ ci mooy dafa am juge bu ñu fital mu daanu maître Babacar Sèye ñu di ko jooy ba tey tey am euh, formation politique wala candidat bu amul ko naqar yi utiliser taalul bal taalul marto deful dara yóbbu ko fañ ko war a yóbbu jaarale ko fi ci wuñ ko jaar ba tey président de la république taxaw am une attitude seigneuriale hmm. je ne fekk que constater parce que tey Macky Sall ku ko bindul woon dama jàpp bu ko buñ ko bindul woon boolewuñ ko ci la mu doon wax waxoon na ko ba pare et je pense que moom la moom la féetali li tax nag ma mën a waxee foofu mooy man dama yàgg gëm ni ci waxtaan élection yi ci waxtaan lañ ci mën a demee mhm. te waxtaan naag ñëpp man mii parce que man sama métier ci Afrique mooy expert en médiation lu mu ndaw ndaw amul ñu ma waxal ñu ma waxal ñëpp ñu bokk ci opposition bi ak ñi bokk ci pouvoir bi koo ci waxal danaan la réew mi de talu ko réew mi de fi ñu jëm bu ñu mënee waxtaan moo gën illaa nag reporter élection la kenn dul woon nangoo porter comme responsabilité parce que da nga naan musu fi am te bu ma ko waxee ñu ne euh, am na lu ma soxla wala dafa am lu ma bëgg wala dañ ma ger kon ma jàpp ni tey bu ñu waxee ba yegg si fii ñu yegg si ñu am ay élection yu mus a am parce que élection yu élection yi bu doon tudd tur guléet lay doon gulet ñu am élection yi nga xamante ni président bi dootu ci bokk waaye gulet ñu am élection yi nga xamante ni dafa am euh, ñaar fukki candidat gulet ñu am élection yi nga xamante ni dafa am candidat bu ci bokk te nekk ci kaso bi waaye gulet ñu am élection yi nga xamante ni dañ ci jëm ka war a nga xamante ni mooy le juge électoral ay nit ñu ay sénégalais ni man ni yow ni journaliste yeeg ñëpp nekk ay citoyen am droit ñëw taxaw joxar bi leen ni leen ñaar am na ci yéen ñi nga xamante ne ak mbokk moo dox seen diggante ak yenn candidat yi waru leen waru leen da ngeen waroon a génne seen bopp am ñu wax ni sax dañoo jël koppar teg ko ci seen loxo maanaam ñu ger leen damay wax ni quand vous avez le privilège quasi suprême de juger vos semblables vous devez être au-delà de tout tout soupçon waxuma ni ñoo def de mhm. mais dama jàpp ni conseil constitutionnel bi bu lii amul woon sax lépp lu mu fi génne naxarondam naxarondam toog jëndi woo suukar waaye dinañ ko ni yow mii ñu jiiñoon ni da ngaa ger tey résultat yi nga génn kenn mënu ci ànd ma may li am ba des mooy Sénégal ñu ñoo ko bokk kenn waxul ni nit mën nañoo dëkk ci lu xew ñu ne nañu waxtaan nañu juboo parce que Lénine boroom xam-xam la nee na tous les éternels conciliateurs sont des liquidateurs àdduna noo fee nekk fu nit ñi xuloo ngeen nañ da juboo politique dafa ànd ak waaye bu ñu yegg see ci bul ma ba ma xëti dañu war a taxaw waxtaanee réew mi dama mus a wax nii te foofu dama ciy préciser leen man damay rendre hommage président Macky Sall ci lenn lu ma xam bi ci sama waxtaan boobu ma doon waxtaan ñoo ma waxal ñëpp lii lañ may wax ah mbir mi dey nan la ñuy def waaye xam nañu réew mi talu ko moom da kotuwaay naa ko maanaam ànd naa ak moom lu mat presque ñaar fukki at benn yoon bi ma mus a gëdd mooy bi ma ko dee président yaakaaroon ni da nga war a woote waxtaan ñu waxtaanee lii ndax ci crise bi ñu jëm. mais mais Maodo Malick Mbaye euh, j'entends bien euh, li ngay wax ni mais ñu fàttali itam ni les principales forces de l'opposition ne sont pas d'accord et l'ont fait savoir dès hier soir est-ce que loolu itam président waru ci woon tenir compte. préciser foofu damay préciser ma jàll ci dama wax ni de manière intransigeante bi ñu bi ma ci waxee dafa man dama jàpp ni lii du lu ko neex lu nga xamante ni wax na ko maintenant li am ba des nag mooy am na ñi nga xamante ni position de principe la ñu am mooy dañoo war a respecter constitution bi nañu dem ci respecter calendrier républicain bi position de principe politique la am na ñi nga xamante ni tey jii nii boo waxtaan ak ñoom dañ naan wax ji débasat na gëm nañ ni li mu wax gëm na ko mais nan lañuy ñuy def ba bañ a passé Euh, euh, deux avril yeggaguñ nan la ñuy waxtaan bi ñuy waxtaan waxtaanu lan lay doon ndax ci lépp la ñuy waxtaan ba fexe ba lépp ñu mën ko dajale ba ànd ba fexe nag te li may wax mooy day olof day wax ni ku dëpp dal ci xal dal na la beneenu xal dal dal dese na la beneen weneenu tëb man dama jàpp ni li ñu war a soxla mooy lu rëy lii bu amee mooy ñu randal élection présidentielle dañu war jël waxuma temps mais dañu war a jël préoccupation yi ñu am yépp tam nga xamante ni daf ñu war a ñor bu dee ci ñaari fan la bu dee ci ñetti fan bu dee ci trois mois bu dee ci deux mois man waxuma ñaar temps la ñuy toog mais buñ ci jógee war a ñu ci war a ñu fiy taxawat di wax ni élection am na kii wóoluwul kii kii wóoluwul kële yoon wi ñu jël baaxul wala yoon wala ñu jël ñu ñu jël ñu jël baaxul dama daal man li ma jàpp te mën ko xalma mooy contrairement à ce que mën a wax ni tey bis bu ñànk la ci démocratie ñi koy wax dañoo fekkiwuloon quatre-vingt-treize wala ñu bëgg ko fàtte te yonent bi sallallahu alayhi sax bi mu yegsee nag yàlla daf ni mag ñi fàttali leen ko li fi démb pour man je n'aime pas le mode comparatif mais li fi xewoon buñ ko mënee utiliser tey ba mën a dem l'essentiel mooy ñu jàngat ci te ñu xam ni Sénégal préoccupation dëgg bi mu am mooy un préoccupation de développement hmm. très bien merci beaucoup Maodo malik Mbaye ñu ngi lay ñu ngi lay euh, jaajëfal. Euh, oui. parenthèse. oui allez-y. parenthèse yu rek précision la ak euh, témoignage. waaw. Mhm. pendant pratiquement plus de dix mois. Mhm. Maodo Malick est en train de faire le tour du Sénégal. Mhm. pour ñu trouver solution bi ci élection yi di ñëw. man ragal naa ne ak moom def naa ci. plus de vingt heures ou trente heures mais moom def na réew mi souci la woon bu rëy rëy rëy ci moom pour élection yi ngoonte moom xam naa ne euh, bu dee amee ngoonte moom li mu wax gëm naa ko parce que dox na ko ci ñu bari bari am na ñoo xam ne sax man maa ko ne demal nga seeti diw seetil diw dafa ma doon laaj ñan ñooy nitu jàmm parce que bi ngay xeex il faut nga préparer bu jàmm ñëwee bu xeex bi jeexee en tout cas lu ñu mën wax tamit mooy malgré en c'est bonne parole parce que loolu la ay a rafetlu une décision qui n'est pas consensuelle. c'est une décision qui n'est pas consensuelle. c'est une décision qui n'est pas consensuelle. et le premier élément pour terminer c'est que le président en commençant ses propos a dit que c'est indifférent entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Est-ce que nous sommes dans cette situation euh, non mais avant d'entrer dans dans le